ndaxte euh, dañu nekk pare d'ailleurs taxawagul sax de manière formelle mm-hmm. n'est-ce pas on est toujours dans les négociations avec avec des avec euh, ñi nga tudd noonu waaye euh, sori nañu ndax bind nañu charte boo xam ne ñëpp gaa ñëpp amandé nañ ko charte de la coalition et tout. ñëpp signé nañ même le yéen Pastef. en vérité signé guñu ko mais ku nekk dañ ko bind ba pare ñu amandé ko mhm. jour bu ñuy bu ñuy euh, dévoiler euh, coalition bi ci lañ koy signé incha allah waaye li ñu war a jàpp surtout mooy que ñëpp en vérité ñëpp mënuñoo waxtaanandoo c'est pas possible una unanimité moo amul fenn xam nga en deux mille dix-neuf y a eu yoo xam ne ku ci nekk danga nga am coalition boo demoon te pourtant c'est am na ñoo xam ne il euh, dem nañu ci coalition jàppalewuñu Ousmane Sonko malgré leur promesse de le faire déjà mais dañu dem ci yeneen coalition mais ñun loolu musu musu leen ñu dégg benn yoon fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu ko kaase musul am parce que dañu jàpp ne ku nekk fa nga yaakaar ni fa nga war a nekk fa ngay nekk waaye lii nga xam ne moom la ñuy taxawal incha allah bis bu taxawee tamit waxuñu ne rek ci ñeent ñooñu lay yem ndax waxtaan mën naa continuer mais nag il faut mu am ñoo xam ne ñoom ñooy commencer waxtaan ba tënk dara bu ñu paree euh, am ñeneen ñu ñu waxtaanal parce que nag vraiment. Euh, il faut que nit ñi ñu paree am ñeneen ñu waxtaanal cest dire que da ngeen di tënk bu ko defee parti bu nekk dem ak ñi nga xam ne ñoom la amal affinité c'est comme ça. waaw mais loolu mooy rôle coalition sax coalition ku nekk ki nga amal affinité ngay àndal mënuloo ànd ak koo xam ne amu leen affinité tey jii nii par exemple il ñun il est inimaginable que ñu ànd ak wa kenn ku bokk benn bokk benn bokk yaakaar inimaginable. Cependant, on ouvre nos portes à toutes les formations politiques qui sont dans l'opposition. Toutes les formations. mën nañu toog waxtaan ak ñoom bu ñu juboowee mën nañu ànd ak ñoom fii ñu toll nii nag coalition bii ngay wax nii nag dañoo toll ci waxtaan ci tënk euh, conditions yi nga xam ne moom la ñuy demee ci élection yi. bis bu ñu paree rek incha allah. mais tax ngeen bëgg ko def ngeen bëgg ko def mbirum appareil mbirum direction de parti alors que les élections locales c'est la base. mais attention ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci base bi war a mën a waxtaan ci seen biir ba xam diw ak diw ñoom ñooy ànd waaw mais yooyu ay orientation rek lañu c'est-à-dire que le sommet ne donne des orientations parce que réalité locale yi aussi dañ ci jël dañ ko jël en considération parce que boo demee fu mel ni Mbadakhoune par exemple réalité Mbadakhoune wute nag réalité fu mel ni Mbao donc ce qui fait que euh, orientation rek la ñuy joxe waaye ñun mën nañu par exemple dans nos différentes communes la discuter ak ñenn ñoo xam ne même bokkuñu ci coalition au sommet bi mais ñu ànd ak ñoom dans aux élections locales loolu yaakaar naa ni euh, amul dara lu ko lu koy lu koy tere. mais mais dans cette coalition ñenn ñi ñu ngi leen di wax euh, notamment am na ñu def conférence de presse pour dal ci yéen. Mhm. ñenn ñi di wax ni coalition boo xam ni. c' est l' antisystème avec le système ban jàngat ngeen am ci loolu parce que euh, coalition bi di ngeen indi PDS di ngeen indi parti socialiste Khalifa Sall di ngeen indi Karim Wade te ñoom aussi ils ils ont été au cœur du système donc yow léegi ñooñu loo leen di tontu. waaw mais écoute man man li may tontu ci loolu rek mooy bo ki ki def conférence de presse bi jarul ñuy nëbbu turam. Thierno Bocoum la Thierno mhm. Bocoum en 2019 bi muy dem di soutenir ji delluwaat ci Idrissa Seck mais ñun xam nga loolu ñun ŋàññuñu ko ci. dañ ko bàyyi mu mu mu ak teewaayu bakkanam mu dem soutenir ji Idrissa Seck c'est son droit le plus absolu maintenant ah mu ngi ba tey mais mi ngi ci opposition ba tey loolu reconnaître nañ ko waaye angle bi nga xam ne moom la ñuy attaquer coalition bi surtout que naan euh, Pastef anti système dem di rejoindre ji waa système bi lu tax gaa ñi waxuñu l'inverse c'est une question qu'il faut se poser parce que système du nit système mécanisme la c'est-à-dire mécanisme la boo xam ne. l'inverse parce que c'est le système qui est venu vous voir. non dama ne lan moo tax xalaatuñu ne ñi nekkoon ci système bi. ñoom ñoo ñëw ci yéen ñoom ñoo bëgg a ñëw loolu laa la wax nit ñi xalaatuñu ko. on pose la question d'une autre façon mais lu tax lu tax ñoom xalaatuñu ne ñu nekkoon ci système bi ñoom ñoo wëlbatiku ñëw bëgg a changer système bi nga xam ne moo fi nekk depuis mille depuis mille neuf cent soixante peut-être parce que ñi nekkoon ci système bi ànd ak ak ak l'anti ak ak euh, l'anti système peut-être eh, loolu mais ñun jusqu'à présent du ñu ànd ak du ñu ak système du ñu ànd ak ku nekk ci système bi parce que nguur gu nekk. donc nan la ñu mën a comprendre cette alliance moo koy régir. nan la ñu mën a comprendre monsieur Sarré cette alliance avec ce qu'il ce qu'il faut com enfin ce que li nit ñi war a comprendre mooy nguur gu nekk système moo koy régir. au Sénégal il y a un système qui a été instauré depuis 1962 te muy un mauvais système ñun ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu constaté ko ndaxte si ce n'était pas un mauvais système Sénégal du nekk parmi les vingt cinq pays les les les plus pauvres du monde n'est-ce pas maintenant ñun on a dit que ni ce système là lañ fi bëgg a jëlee c'est-à-dire euh, ce mécanisme là bi nga xam ne moom lañ fi taxawal depuis 1962 te dara euh, war dara euh, jiitalu ko lu dul ay nit ñoo xam ne ils font fonctionner le système pour défendre leurs intérêts personnels ñun suñu rôle à nous mooy fexe ba changer système bi indi fi beneen système mais pourquoi nit ñi mënuñu xalaat nit ñi nga xam ne dañu nekkoon ci système bi te jóge ci. et pourtant ce sont ces personnes qui incarnaient le système. comment euh, ñooñu nit ñi ñoo doon incarner système yi c'est vrai eh que. système bi nit mais ce sont des gens qui incarnent le système ils l'ont à un moment donné. mais loin de nous l'idée de penser qu'au Sénégal il y a deux catégories de personnes nit ñoo xam ne ñu bon lañu ak nit ñoo xam ne ñu baax lañu. oui mais mais man ñun li ñu jàpp moom confronter débat bi mu neex. euh, à un moment donné, Ousmane Sonko a fait un point, point de presse pour dire que M. Karim Wad m'a appelé. Nous avons jugé nécessaire de ne pas répondre parce que nous considérons encore qu'il est l'incarnation du système. Aujourd'hui, le PDS, Taïnoum, organisé, c'est sous la coupole de, de, de Karim Wade. Donc, est-ce que Nekul sen discours, moi, rattrapé, wala alors c'est une démarche, moi, changé, parce que les l'objectif, c'est de vous réunir pour faire face à Macky Sall et quelles que soient les contingences ou les différences idéologiques est-ce que tamit loolu waru leen waru leen confronter est-ce que tey loolu du vaar buy ñëwaat. mon frère dinaa la rectifier tuuti parce que ci conférence de presse boobu Ousmane n'a jamais dit que jëluma ma Karim Wade parce que c'était l'incarnation du système. il oui. a dit que. Mm -hmm. je ne lui ai pas répondu parce que man mënuma xalaat nit di nekk ci biti bëgg a incarner le rôle du chef de l'opposition et c'est son droit le plus absolu de le dire en ce moment-là mais jusqu'à présent Karim n'est pas encore venu il faut le mm-hmm. reconnaître mm-hmm. moment boobu loolu moom moo doon xalaatam mm-hmm. waaye li wóor ba wóor mooy nañu jàpp ne système bi du nit système bi mécanisme la nit ñi bu ñuy pose organisation la nit ñi bu ñuy posé wu question bu ñu ko posé wu rek d'une seule dans un seul sens c'est-à-dire que xalaat ne ñi ne les antisystèmes ñoom ñoo dem fekk ji waa système bi waaye pourquoi mu nañu poser question ne est-ce que ñi doon incarner système bi jógewuñu ci système bi pour ñëw vers vers l'antisystème alors alors l'antisystème actuel alors, alors, alors monsieur Diallo euh, <laughs> coalition bi euh, wax nañu ko ñeenti la muy PUR muy PASTEF muy le parti démocratique sénégalais ak Manko taxawu Dakar bu Khalifa Sall lan moo ci position bu gëm sa bopp sa candidature mais comme li may wax rek il a une doctrine républicaine mu topp ci sénégalais yëpp mhm. rester aussi dans l'opposition accompagner un leader de l'opposition mhm. moo tax may leeral encore une fois de plus ne ñii am yaakaar ni am na lu dox ci digganteem ak pouvoir il est important de le rappeler que les sénégalais sachent que les Sénégalais savent que le président Bougane Gueye Dany est bel et bien dans l'opposition te lu ñuy woowee opposition radicale mooy dans tous les grands combats yu am ci opposition bi mu ngi ci biir ah lu ñuy wax nag mooy kenn ku ci nekk ak sa choix ci politique tey ñun am nañ suñu coalition ñun waa gëm sa bopp nous avons une coalition coalition bi ay anciens ministre d'État ñi ngi ci biir ñu ci nekkoon sous le régime du président Abdoulaye Wade ay ministre ñi ngi ci biir ay anciens député ñi ngi ci biir ñu nekkoon aussi ay membre bureau Sénat ñi ngi ci biir mais comme lu ñuy wax rek président Bougane dafa am benn philosophie ci biir ba gëm sa bopp mooy dafa dal dafa teey dafa jël quatre-vingt-dix-neuvième turu yàlla jiital ko mooy asaburu la patience tey sax mënoon nañu lancer ñu nit suñu coalition mbirum quatre grands yi nag man du ma tooñ kenn parce que yaakaar na ku ñuy woowee grand sénégalais yi ñooy dem ba ñu dem ci urne yi suñu paree au soir du 23 janvier les sénégalais pourront dire que kii ak kii mooy ay grand mais vu que am na une partie de l'opposition yuy toog di daje di waxtaan moom aussi mi ngi en concertation te yàlla dogal na tey gëm sa bopp su demaloon boppam rek ci élection yi ah gëm naa au minimum dinañ am trente communes mooy gëm sa bopp képp su demoon élection mooy même sans nos alliés mooy allié yu bokk tey ci coalition bu ñuy waaj a lancé. semaine bii ñu ñëw fan fan ngeen teg loolu. xam nga participer gu leen ay élections pour ces élections euh, mobilisation bi euh, moom ngeen yaakaar ne tax na ba ngeen jàpp ne mën ngeen gagné. ces trente xam nga tey ñu bëri ñu ngi communiqué. ñun bu ñuy déposé suñuy kayit au ministère de l' intérieur ñu bëri suñu génnee dañuy wax ñun waxuñu. bu ñu démarré dañu toog une semaine. désigner aussi suñuy mandataire au niveau des quarante six départements des quarante six départements du pays waxatuñ ci. soo jëlee les cinq cent cinquante sept communes yu nekk ci biir réew mi suñuy représentant ñi ngi fa di liggéey tey soo demee dëkk bu mel ni sax Makka Kolibanta Tamba Bakel Goudiri Koupentoum ah, Kédougou Saraya Salemata amul fenn foo xamante ni tous les jours ku ñu nommé mooy koo xamante ni moo yor ci ñun le processus électoral mi ngi liggéey ak ñoom mooy chaque instant à chaud ñi ngi jot les informations ci lu xew ci dëkk dëkkaan yi nu sommes en contact permanent avec les préfets les sous